monsieur le, monsieur le ministre, madame, monsieur les collaborateurs des ministres, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues. Monsieur le Président, je disais tout à l'heure à un de mes collègues que pratiquement tout a été dit. Il faut juste peut-être répéter parce que la répétition, elle est pédagogique. Ce projet de loi est un projet de loi important qui vient à son Et on a expliqué, parce que hier, c'est ici du haut de cette tribune que j'ai alerté en disant que certains de nos collègues sont en train de faire de la manipulation au moment où on était en train d'examiner la loi de finances rectificative ici à l'Assemblée nationale. Il faisait une conférence de presse pour manipuler encore une fois l'opinion nationale et internationale. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est alerté à cause d'une manipulation d'une certaine opposition. Il parlait de l'article 279.1. Un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2007. Ensuite, en 2016, on l'a voté ici, au mois d'octobre. En novembre, on a publié ça au journal officiel. Aujourd'hui, on nous ramène projet de loi et changé dans cette définition du terrorisme. Quelle mauvaise foi. Je pense que, monsieur le ministre, c'est important. Vous l'avez fait ici en donnant la définition, en lisant l'article 279.1 pour que les Sénégalais puissent comprendre exactement c'est quoi l'objet de cette modification aujourd'hui. wax nañ ko sànq titre 2 ci yokk mooy de la piraterie maritime loolu la ñu yokk ci kanam piraterie maritime ensuite ñu intégrer li ñuy wax financement terrorisme mais loolu dafa nekk loo xam ne c'est des dispositions internationales yoo xam ne ñun assemblée nationale ñun ñoo ko voté ici mais bu ñu voté ay loi ratifié ko mais il faut que ñun ci suñu interne suñu corpus juridique ñu intégré ko ci waaye yaa xay lii da mooy wax ji ñoom nag comme ñoom mënuñu am élection yi ñu gañe amuñu nit amuñu vision kenn àndul ak ñoom ñu ne nañu fexe indi terreur indi terrorisme jaxase xelu nit ñi pour jël nguur gi loolu mënul nekk gis nga pour jël nguur dangay dox wax am xalaat def yëfu nit nite sénégalais yi nga xam ne ay nit lañ wóolu la dénk la ne la doxalal waaye wor sos wuruj njuuj njaaj ku yaakaar ne di nga ci mën a jël nguur perte nga Sénégal loolu amatu fi je pense que aujourd'hui li am ba des mooy toute cette manipulation a été découverte au grand jour looloo tax ñu ne nañ ko def en direct pour que sénégalais yi xam ne fii amul lu ñu fiy nëbb lépp leer amul tey képp koo xam ne yor nga tele rajo site internet ñuy def ñu ne huis clos xam nga dañ daan wax ay huis clos dañuy nëbb nangam nangam fii lépp ne fang lépp leer li ñuy wax ñëpp dégg ko nit ñi xam ne la ngeen doon wax yëpp ay sos la. dafa am ku ma wax ne pour pourquoi mun leen di anticiper sur la manipulation may leen mën nga anticiper ci lépp ba mu des sos xam nga nit bu fekkee ne suba da ngay mu ne la yow suba daf la nar sosal ne da ngaa biiral loolu loo koy anticiper ngeen baal ma ci kàddu gi sos kenn mënu ci anticiper. li nga mën a anticiper mooy loo xam ne dafa am quelque chose boo xam ne c'est réfléchi ñu togg ko ñu xam ne lii dinañ ci dem waaye koo xam ne dafa laa nara a sosal suba yow bu fekkee nit ku baax nga munoo xalaat ne nan ngay anticiper parce que ku xamul sos xamoo wax lu dul dëgg xamoo wuruj munoo anticiper sur cette communication mais heureusement les les médias sont la presse elle est là lépp leer na li ngeen doon bëgg manipuler di def lépp heureusement au grand jour la leer nañ heureusement que lëndëmul dafa leer nañ nit ñi xam li ñuy def et je pense que cette loi elle vient à son heure ce sera voté monsieur le ministre on vous encourage on vous félicite ku bëggu nguur wax dëgg yàlla da ngay dem wuti vision xalaat xam-xam ak programme je vous remercie je vous remercie monsieur le président la parole est à notre collègue Cheikh Tidiane Gadio